xamne aji xam na turam xamoo tax suba xamo aji kan lay waxal xamo aji mën na toog fenn mën na gis nga kalifon ni ma def tok fenn yàq sa diggante ak say nit yow baax na bu ko bu dugg ci man musuma presenter aji ben kilifa bu ma xam musuma ci dugg aji nu ma mën def ko am ci nit ñi xaalis dossier be yenen elle s'en fout Françoise Hélène live barki démb Françoise Hélène dafa live wax turu kilifa yi mu xam yi moo man aji di photo wu di vidéo wu nekk ci salle de bain di photo ay photo yu sexy di di xooy waa ji waa ko man da laa yërëm di la jàppale mais intéressé woom aji même vidéo yi muy def di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na ci réew mi yëpp nekk ci salle de bain di filmé di charmé wu di way di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na ci réew mi yëpp yow xam nga ci dara man gis waaw ah, Cheikh Amar lu dee ànd ak moom ba tey gis na ñu ma def ak Kaliphone ma ko mos naa la dóor mu ne ma déedéet ma ko génnal nga weddi ko mu moom yoonam nekku ci moo moom dafa foog ne li mu wax Kaliphone moo tax Kaliphone dafa yor preuve ci moom dina wax Kaliphone fan mën na ñàkk retenir boppam wala Françoise Hélène suba ñu tudd xamul kilifa gu ma xam xamul ku may liggéeya ndool ndax lépp laa koy nëbb ndax xam naa jikkoom bu yàggee day day jaar ci suuf ci say nit noonu la ma def ak Mathiam noonu la ma def ak Siaka noonu la ma def ak nit yu bëri yu day jël seen numéro jaar ci suuf di leen mbarante du ma ko yëg non yow foofu nga toll toog may toog muy wax ak muy ma laaj Mathiam te moom nan laa ko jàppee parce que aji na lan moo tax ma ma comprendre yo bi muy doog ci man amul woon téléphone naa ko sama téléphone téléphone bi ma ko iphone la woon iphone bi dafa synchroniser ak sama tablette ak sama ordinateur aji bi mu bimu bi mu jëla bi mu amaatee iphone 12 bi ci la ma sama iphone 7 bi te xamul ne discussion yi des na ci ci comprendre aji li mu def iphone 7 boobu ba tey maa ngi ko denc ndax preuve yi gis nga Françoise Hélène li mu def Mati Trois Pommes Bamba Kassé Ablaye Der Ablaye Der Françoise Hélène mosul xam ne Ablaye Der xam na aji aji moo nettali yëpp Bamba Kassé Ablaye Der Bougane Gueye Dany fekk ñooñu ñëpp aji moo tudd seen tur Françoise Hélène Françoise Hélène dem live leen xamu ko lu ma ko Françoise Françoise xam na koy laaj Diop xam na ne kilifa la bu chantage laaj amul xaalis day dem ko wax laaj laaj Diop ni laaj Diop ni loolu la def Bamba Kassé ak ñeneen ak ñeneen moomee xam nga lan la mais xam nga la man xam naa jikko ak ni mu yàqee Mamoud Diallo te Mamoud Diallo wallahi lazim jàppale ko dong la doon def Mamoud Diallo aji moo ne aji moo ne ne ko jàppale ma donc koo xam man dama lay jox conseil comme man li ma def xam nga man bi ma récupéré iPhone bi laa gis conversation ci nekkoon yëpp laa xam moom ban genre nit la ndeke moom iPhone bi mu yoroon sama téléphone la kilifa yi ci nekkoon sama xarit yi nekkoon ci góor jéem na duggante ñoom bay mbaraan ñi wala di ëffal ñi ak ak ancienne copine am masseuse yi li ci jël commission am teg ci te loolu am naa ci ay man tamit lépp laa yor gis nga Adji Sarr même ay ordonnance am ngi ay copie bi même cachet pharmacie bu ma jëndee damaa ubbi dossier teg sax léegi nag sàmmal sa bopp nga sàmm say nit. Saar dañu gis nga journal Le Monde bi ñu jógee internationale bi yëpp maa ko def ndax gëmoon ko ndax yërëmoon ko mais la ma ko yërëmoon gàcce laa ci am gàcce ak lu ma metti mais rus naa génn wax ko. pour génn ndaw dafa foogoon ne day dem ci ay mbokkam bi mu demee ci ko ndax. mu dem sama kër yaay mais loolu Kaliphone waroon na am honnêteté wax ko mais Kaliphone du ko wax non man woo ma a Kaliphone non man la man xaw ma lu ko aji wax mais man Kaliphone dama ko mës a moytu yoon la après li may woo yëpp bëgguma toog ak moom moo tax li jëntuma lu muy wax bu fekkoon dafa rëcc ba dem Salif Salif bee mu demoon foofu kër gi mu demoon sama kër benn xarit la sama kër xarit la maa ko fa yóbbu

maam ay benn tubaab parce que ñi may liggéeyal ay ay nasaraan lañu su bëggee dem sali damay àbb sama xarit yi ñi am na ay xarit yu bëri nekkuñu fi ñoo nekkandoo woon France mais sa kër damay jël caabi dem dugg ko xalam neexee damay jël jox ko mu dem ci kër yooyu boo xamoon ñi ko doon jàppale yëpp dina téye sa xaalis man nag xaw ma la xamoo ma te bëgguma sax mu xam ne xam naa fu Fatmata Njaay génnoon wax ci man daf koy daf may fay envoyé xoolal kii li muy wax ci xool ndeke moom lu fu lu ma Fatoumata Ndiaye Tampi bi jàppaloon ba may clash si réseaux sociaux yi di ma xas di ma gite xamuma aji moo tax te Fatoumata néegam la toog sukkal ma ne bëgg nga baal ma àq li la def yëpp ah kii de ku yabu wallaay boo xamoon àq bi mu yoreel policiers yi nekk foofu boo xamoon li muy def policiers yi nekk foofu di leen di di leen chantage ci la dëkk parce que man waaw mënuñu ko supporter leen daal man la nga dem tëddi man mi woo na ma di ma laaj ordinateur dégg nga ma la laa bëgg bu ñu toogee mère Fatou si dama lay jox turam mère Fatou si mi nekk ci kër ga ak aji kooku mooy raxasal agent yi moo leen di toggal moo leen defal lépp parce que aji day bañ di ko defal agent yi kooku mooy mooy togg mooy def lépp ci kër ga kooku maa ko jëlee tege ko fi pour mu uuf aji wétali ko comme yaayam comme xani aji amul yaayam xamul yaayam dama ko jël woon lingeer pour mu mën a aji delloo si xelam uuf ko comme yaayam pour mu mën ko kii quoi soo bëggee kooku bu dama koy woo mu ñëw toog ma jox la naan mu ñëw toog sama chauffeur toog soo bëggee sama employé yi fi nekk sama six employé yi fi nekk ñoom ñëpp ma tàcc leen ñu toog réunion nga dégg gis nga photo aji yu rafet yi ngay gis ci réew mi sama bureau sama waa bureau ñoo ko def gis nga campagne de communication à l'international bi ngay gis ni maa def sama employé sii si ku ma ci wax da nga ma madame dimbali lu jëm nañ ci moom lenn daal naa la yëgal ko ak say nit yu baax foon ko wax dugg nga mu tax nettali na ko Françoise Hélène wala Californie gis nga Californie def moo loo xam yow tamit biñ koy préparé muy wuy sama kër lañ ko préparé avocat mi sama kër lañ ko préparé wax wax na ko Françoise Hélène wala nettali na ko keneen wala enregistré xam nga aji ba tey waxuma ne kii yoof moom moo ubbi restaurant bi man police ma ko wax aji saar ba tey waxuma ko mais affaire de say nit yu baax say connaissance say relation koo ko xamal sa digganteeg moom dina ko yàq xamal sa digganteeg sa nit yi sa nit yu baax yi nañ la jàppale defal la nga bañ na ma boole ak Adji c'est pas parce que da koy soxoree parce que ñooñu ëllëg dina leen yàq xoolal Bougane Gueye Dany mi nga xam ne dafa bëggoon jàppale Adji dong ba Françoise Hélène amul lu ko yekkul fii keroog Mati trois pom noonu Bamba Kassé noonu ñuy Ablaye Der noonu ñuy jàpp ay turu nit ñoo xam ne ñoom dañoo amoon ci moom yërmande dong bëgg jàppale te Ablaye ñooñu ñoom Bamba yoon la ñuy yónnee seen ay famille yu aji ay famille yu aji ay papa ay cinquante mille ne loolu fekkee naa ko lu dul benn di ñaara te ñoom ay journaliste kese ñoom sax def nañ ci donc buñ toogee ba ñuy weer seen tur naan la ñoom ñu ngi def ma na lu dul benn di ñaar toog naa ñoom ñuy envoyé ay famille yu aji dimbal ay cinquante mille ay cent orange mu ne bu ñëwee dañuy yàq seen tur françoise Hélène bu ko yëgee c'est que aji da koo yëg wax ko françoise Hélène boo moytuwul audio bi ñu ko transféré sax françoise Hélène bi nga xam ne tey tey mu farak Macky Sall suba mu bañ a farak moom jour bu ko Macky Sall joxul lu ko bëgg day toog teg teg ko léeg-léeg day woote di wax ci man di wax ci man loo xamante ne lii neexul a dégg mais damay gars dañ koy reparler mu di ko dégg muy wax ci man lu bon loolu Kaliphone seddal na ko Kaliphone da koy woo xamul ne maa ngi ci beneen ligne bi lu ne mu wax ma ko muy dégg ma xam jikkoom bàyyi ko ci biir ndax bés a ngi ci bis yi te bés boobu dina ñëw incha allah wala ki ko xam ne yaa parce que bis bu ñu ko xamee si saxal te def ko ko wax. est-ce que xam ma ko wax rek. ci mbedd bi laa déggee ne da ngay wànk aji aji musuma wax sa wax ba muy bëri wax yëpp musuma wax sa wax mu tax musuma wax sa wax lu na ñàkkaloon du la ko defal maa la ko wax koo xam ne da nga dem toog ci ñoom ay nit ba Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi da doon live di Fouta Tampi da doon live di ma attaque